الله أكبر الله أكبر الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين amma baat mbokki jullit yi maa ngi dénk sama bopp ragal yàlla di leen ko dénk noo xam ne noo ngi séentu gan gu mag bi muy shahru ramadan al mubarak ci fan yu néew rek insha allahu dana dugg si fekke shahru ramadan al mubarak xéewal la bu rëy goo xam ne asalafu saalix muy ngi jiitu woon ci lislaam daanañu ko ñaan dañoo wax ne at bi yépp juróom benn weer yu njëkk yi yépp dañuy ñaan fekke shahru ramadan bu shahru ramadan jàllee weer yi des ci at mi yépp ñuy ñaan yàlla nangul leen li ñu def ci shahru ramadan moo tax ñu ne ñoom seen at mépp ramadan la woon ramadan du jóg ci seen xel du jóg ci seen xol benn yoon shahru ramadan nag bu dee dugg si dana war ci ab julit mu ak tay yi nga xamne mo nek ci koor ndax mu meuna wor koor go xamne dana ak niko suñu borom tabaraka taala digle deppo ak sunna yaronte bi sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam ndax loola kat la yalla fay te koor ni mu metté ci bakkan nit ki war naa fexe ba ko ak sunna yonente bi sallallahu alayhi wa ba la ci suñu borom digg ci fay mu yeyoo li jiitu ci appel yi ci war a xam mooy yoonal gi ñu ko yoonal ba buñ la woon lu tax ngay woor nga mën a tontu bul woor ngir aada bul woor ngir toppandoo bul woor ni dama koo baaxoo def rek wala barab bi ma nekk looloo fi xew déedéet waaye xam nga fu wéet foo ko teg foo xam ne boo wéetoon nekk ko kenn nit ak barab boo mën a nekk bu boobaa da wor ndax ak jaamu yàlla lay tax mu tudd ak jaamu yàlla la ci jiitu mooy nañ ko yoonal naka suñu borom tabaraka wa taala digle weeru koor nag suñu borom tabaraka wa taala digle na ko ndigal la sax na ci alquran sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñëw feddali ko boroom xam-xam yépp itam kenn wuutewu ci ci war woor shahru ramadan dafa bokk ci yi nga xam ne mënee su ko ñàkk xam ci diine ñàkk a jàng du tee nga war koo xam ci diine dafa am ci diine yoo xam ne moom du ca awalay nga naan damaa jàngul moo tax xaw ma woon ne julli daa war wala xaw ma woon ne woor weeru koor dafa war loolu moom woowu lay kenn du nangu kenn ñaareel ba xam itam shahru wi ñuy woor wan weer la suñu borom tudd ko ndax mënoon na ne woor leen aw weer ci at mi rek waaye dafa tudd turu weer la ne mooy shahru ramadan shahru ramadan allazi unzila fihi alquran shahru ramadan mi nga xam ne ci la ñu wàcce alquran kon suñu borom mi ngi ñuy junj ak màggaayo ndax alquran moom lépp lu joteeg moom rek day daal di mu ne alquran moom nga xam ne jubal nit ñi ak leeral leen ak jub taqalel len digënté deug ak neen moko taxa jox hudan linnas wa bayyinatin min al-huda wal furqan wa bi faman shahida minkum ash-shahra falyasum ku téwé ci yeen wër wi nako wor ñettel bay tam xam waxtu wi ñi wor ndax du wër yépp lañuy wor rek continuer da ci am digënté bu ñi wor ak fuñ dul wor bëccëg bi lañuy wor way du wor guddi suñ borom tabaraka wa taala xamal lu koor gi fi muy tàmbalee ak fi muy yem mu ne wakuloo washrabu hatta yatabayyana lakum alxaytu alabyadu min alxayti alaswadi min alfajr summa atimu siyaama ila alleyl bu guddi gi mën ngeen di lekk di naan ci guddi ramadan mën ngeen di lekk di naan ba fajar di jot waa xam ne fajar fekk na nga xam ne lëndëmuk guddi gi ak leeraayu fajar foofa nag la koor ga tàmbalee bu ba jant bi di so kon bëccëg bi lañuy ñuy waaye bëccëg bi nag mi tàmbalee ci fajar tàmbalewu ci fenku jant bi waaye mi tàmbalee ci fenku fajar ndax foofu la bëccëg tàmbalee ñeenteel ba itam ñu xam nag shahru ramadan nu ñuy xamee ne dugg na xam ngeen ne loolu jullit ñi am nañ ci jafe-jafe rawatina suñu réew mi ci juuyoo buñ ci juuyoo te lépp bu buñ ko delloo woon ci alquran ak sunna rek fa in tanasaatum fi shay'in farudduhu ila allahi wa rasul in kuntum tuminuna billahi wal yawmil bu ngeen xaccootee ci dara ndax wa maxtalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila lépp lu ngeen juuyoo rek atta baa nga fa yàlla kon bu ñu bàyyee bànneex yi bàyyi par parloo yi kenn ku nekk summiku ci ba set dëgg gi rek yitteel la fu mu féete rek baax na loola kon bu boobaa bu ñu ko defoon juree du am ndax dëgg moom kenn rek la mën a doon kon jullit bi war naa xam ni ñuy xame ne weer wi dugg na te loolu lu jàppandi la benn ci ñaari mbir mooy ñu gis teru tel weer wi borom bi dafa man shahida shahida mooy loo xam ne teeru nga ko seeru nga ko mooy gis nga ko fekke nga ko nee na bu boobaa nañu tàmbali woo yonente bi sallallahu alayhi wa sallam gën koo leeral ne isaa raaytumul hilaala fa suumu bu ngeen gisee teru tel weer bi woor leen gis boobu nag tekkiwul ne kenn ku nekk yaa ko war a gisal sa bopp waaye keneen ku ko gis rek te mu doon koo xam ne ku ñu mën a sukkandiku ci ay waxam la ku ku ñu xam la wala yow boo ko xamul it xam nga ku ko xam xam nañ ko ci ne ku gëm yàlla la xam nañ ko ci ak maam loola bu boobaa xibaaru gis boobu bu sa xasee yegg si ci yow rek woor day daal di war ci yow kooku nga xam ne mooy wax na gis dañ koy nag sant nañ ca mu nekk kon ab jullit bu mat mu kallaf bu amum xel ku ñu wóolu ak xibaaram ngir ak wóoram kon mooy fokk mu doon ku ñu xam boo ko xamul it nga xam ku ko xam wóolu itam ab gisam bu neex ndax gis bu naqari mën naa tax mu gis dara defe ne weer la te fekk na du weer kon na am gis bu neex te itam na doon nit ku wóor koo xam ne wares na mën a sukkandiku ci ab xibaar ñaareel ba bu gis googu amul chaban muy weer ni ñu nekk di weeru baraxlu mat fanweeri fan su xasee am fanweeri fan moom jëratul seen ëllëg sa moom koor rek lay doon ndax weer wi nga xam ne mooy weeru alxamar yi weer biñ sukkandikoo ci jam ci weer wi moom du weesu fanweeri fan gën gaa bare yonente bi sallallahu alayhi ne woor leen su ngeen gisee weer bi woori leen su ngeen gisee weer bi bu fekkee nag dafa niis dafa muuru ba fi ñuy séentoo weer wi neexut a gise weer te amu leen xibaar bu leen jóge feneen boo xam ne wax nañu ne gis nañ fa weer wa te mu jóge ci ñoo xam ne ñu ñu xam la nee na su loolu amul kon bu boobaa matal leen chaabaan fanweeri fan na séntu bu njëkk bi daal bu ngeen ko ci gisul ca ëllëg sa na doon fanweeru fan bis ba ca toppat nag daal di nekk terutal weeru ramadan loolu tax kon dëgganul di woor ngay wori lu dul nga am gis boo xam ne bu wóor la nga gis ko wala nga dégg ko am ca xibaar boo xam ne bu wóor la wala boog Shaaban mat fanweeri fan dëgganul di woor bis boo xam ne dañuy sikki sàkka ñu naan weeri feeñ ak feeñut loola bis boobu kenn waru koo woor naan man damay woor rek su fekkee nee nañ feeñ na booba man fekk wooroon naa ko su fekkee nee nañ feeñut it woor benn bis moom du ma wàññi dara déedéet il faut da nga ci war a am yàqin bu wóor boo ko amul bul wor bu demee ba wóor ne am xibaar bu wóor ne nekk kat feeñoon na yéen ko yëgul woon ah bu boobaa bu koor gi jàllee ngeen fay bis waaye yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee na ku woor bisub sikki sàkka nee na moom mooy nga ko toppatoo ko moom yonente bi sallallahu alayhi wasallam loolu tax kon séntu weer wi ñëpp la war bu kenn toog rek naan lu ngeen dégg ci weer wi jàppal na ya koy séentu ak ña ngay wax lu ngeen ca dégg yaa ngi ñoom ci yem nañ la koy dégtale noonu nga war a dégtale kon buñ ca tolloo kenn ku nekk war ngaa def yitte séentu gi ak jaamu yàlla la ndax ak jaamu yàlla lépp lu koy sabab rek jaamu yàlla lay doon loolu kon jullit yi war nañ ca bàyyi xel te ba a sukkandiku rek ci ay arminaat ak li nga xam ne moom la waa météo yi wax donte loola des na ko dimbandikoo nag des na ko dimbandiko waye kenn du ci sukkandiku nak complètement bañ sentu sukkandiku rek ca lool ndax ñoom la xamle moy weer wi mi ngi fi leg leg ñu na weer moom feñ na waye feñé te gisi suko loola booba atteb lislaam du ca ko suñu borom gis ji la wax weer yi man da nekk nek bu fekke gisunu kenn ko wax na gis nako loola bu euh duñu jappé bu ne ramadan tambulina ndax am na mbir yoo xam ne seenum atte mi ngi ci bu ñu génnee bu ñu feeñee loolu moo ko doon misaal ci doomu aadama doomu aadama fu mu toll sobee ngeeg moom waaye sobe soosu su génnul am benn atte téewul la téewul ko laab la te ku ku ne foo toog yaa ngi sobe waaye sobe su téewul ñu ne ko laab la sobe si balaa am atte daa génn bu génnee rek dañuy wax ne kon laabatoo ndax sobe génn na ci yow kon loolu itam lu mat a bàyyi xel la gannaaw boo xamee ne feeñu weer wi sax na bañ ne weer yi feeñ na kenn ku nekk nag war ngaa natt sa bopp yow foo ci féete foo féete ci weer wi ndax nit ñi foofu dañuy séddalikoo lu bat juróomi xal ñoo xam ne dañoo war a daldi tàmbali woor fi saasi te mooy koo xam ne jullit la mu kàllaf la amul benn ngànt boo xam ne ci yaramam la nekk muy feebar wala ngànt boo xam ne sharia amoo ko teg muy ngànt bu ko tee mën a woor amul benn ngànt daal kooku moom dafa war a daal tàmbalee woor fi saa si koor gi war na ko ku ñaareel ki mooy koo xam ne koor gi war na ko waaye dagan na ci moom mu bane a woor te gannaaw ba mu fay loolu mooy koo xam ne ak tële dafa ne ci moom wala lu ñu séntu ak tële tële gi mooy feebar feebar boo xam ne mënu ko boole koor gi febar bo xamne su ko bolé koor gi febar ba dana yéxa wër wala febar ba dana yok wala lu ñu jorte ak télé muy ak tukki tukki dañ caa sentu lool ak tu ranké ak lu jamono soppi ko rek ba légui kuy tukki man nga tu ranké ci tukki bi motax koku di tukki ak koku febar koor gi war na ko waaye may dañ ko mu woor ko ci yeneeni jamono fa min ayyamin ukhra lim bu toll ne fani koor gi na ko woor ci yeneen bis yoo xam ne nekkatul ci feebar nekkatul ci tukki tukki boobu ñuy wax ne mënees na cee dog koor nag na doon tukki boo xam ne du tukki boo xam ne boroom moo ko def ngir ay pexe rek ngir bañ a woor tax mu tukki tukki du waaye na doon lu ñor loo xam ne daf koo dab dëppoog ay yitteem yu muy dox yoo xam ne mënu ko ñàkk a dox waaye doon tukki boo xam ne weere wee tax mu programme tukki boobu ñuy dokkoor nag moo xam tukki bu gàtt la wala tukki bu gudd la waaye su fekkente ne sart ba daje na sa rek muy tukki la boo xam ne du moo ko sababal boppam loola bu boobaa mën naa dog bu tukki ba jeexee nag mu fay ndax borom bi moo ne wa man kaana maridan aw ala safar fa iddatun min ayaamin uxar lislaam lu mu la digal rek bay boo jël loola du lu ñu xëccoo jamono bu nekk la war ci yow mooy lañ la digal rek ñu bari dañuy jàpp ne weer wi moom lu mu metti metti metti lu tukki bi metti metti wala sax lu feebar bi metti metti woor ci moo gën moo leen gënal daal di ko bañ a woor ca tukki ba da la wax ne moom koor gee gën waaye bu fekkee lu mel ne feebar la nga xam da ngay jël ay garab yoo xam ne heure yi bëccëg boobu nga ko war a jël xër ca koor ga bu mu tax nga ne faaw rek da ngay forcé woor déedéet yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na diine ku moom rek mu gàjj la jamono bu nekk daal lañu la digal rek defal lool dara tuuti wu ci dara xeebu wu ci ñu bari dañu japp ne ndox ci koor di fay ci yeneen bis ak manki tala ni ñuy jappé ne tiim ak manki la déedéet ki nga xam ne tiim mooy farataam moo ka njàpp nekk farataam ñoo bokk atte suñu borom ne yuridu laahu bikum al yusra wala yuridu bikum al usra yalla ak japp ndal la bëgg ci yeen waaye namul ci yeen lo xam ak jafe la bu ñaareel ba ci kooku nga xam ne ba tey koor war na ko waaye da koo war a woor ci yeneen bis mooy koo xam ne nag ngàntu sharia moo ko dab te mooy jigéen joo xam ne dafa gis baax wala mu wasinte setagut kooku moom ngàntul yaramam mën naa woor xëy na attan na koor bi waaye nag koor ga bu wooree du wér ndax atteb sharia moo ko dab ci ne ku toll foofu mënul woor ñetteel ba koo xam ne koor waru ko fay waru ko waaye la ko war mooy itaam mooy lele mooy joxe aw ñam kooku mooy koo xam ne ak tële daa nekk ci moom koo xam ne yaakaaruñu ak dañam lu mel ne koo xam ne dafa mage màggat ba tële woor teg màggat moom kanam lay jëm kooku yaakaaratuñu loolu ko dal di teggi ko ak ku feebar feebar boo xam ne feebar bu ndëkkaale la feebar bu sax la boo xam ne moom it yaakaaruñu ak wéram kooku kon bu weer koor ñëwee rek day lale maanaam bis bu ñuy woor bu nekk rek na joxe mudd mudd nag mi ngi tolloog liibar bu tegal 10 grammes 510 grammes nga tolloog mudd waaye bu joxee lu ko at bi nag baax na fa man tatawaa xayran fa huwa xayrun lahu foofu daal li ñu ci gën a sopp rek bis bu set mu jox miskin loo xam ne dana ca mën a ndogu bu dee xaalis la loo xam ne bu duggoon ci fu ñuy jaayee aw ñam dana ca mën a am lu mu jëfandikoo wala bu dee lu mu koy jox la itam mu jox ko loo xam ne bu ko jëfandikoo dana ca mën a am lu mu doge loola daal mooy li gën a mag waaye nag bu joxe woon kilo wala sax bu joxee liibar bu tegal tuuti itam du tee dana baax waaye nag lu mu gën a amal njariñ ki ñu koy jox rek day gën ci moom bu ko soobee mën naa defar aw ñam woo limbu lim ci ay miskin limu fan yi nga xamne mom la ñaka a wor ndax anas ibn malik radiyallahu anhu bi mu deme ba magge lol ba meunatu la wor def na ko lu mat at ak ñaari at doog fay joge da am defar ndogu lo xamne bu baax lay doon sax la daan doon ak mburu kon ñam bu fonk la daan doon wo ca limu miskin yu tolle fan yi nga xamne mom la masalan boo defoon ndogu loolu woo fanweeri miskin ñu ñëw jëfandiku ca loolu yóbbu na fanweeri fan yëpp weer yëpp yóbbu na ko wala boog bis bu set nga jox ñaari miskin wala nga jox benn miskin benn miskin bu nekk daal yóbbul na la bis ñeenteel ba koo xam ne moom dara la ko koor waru ko fay waru ko lele waru mooy koo xam ne nekkagul nekkul mu kàllaf benn ngir ak ngone dafa nek gone ba nekkagul mu kalaf koku bo woré bax la way bu woru jitt dara woru ko ci wala ko xamné ne dafa feebar tàggoo kom xelam dafa amatul am xel dafa tàggoo kom xelam koku itam wor woru ko fay woru ko joxe ñam woru ko yonente bi sallallahu alayhi wasallam moo ne ñett yëkkaltil nañu leen xalima ñu leen bindal dara mu ne kuy nelaw ba ba mu yeewu koo xam ne borom bi da ko nattoo feebar bu ko tàggalee kum xelam ba ba muy wér ak ndaw ba ba muy mat mu juróomeel bi mooy koo xam ne moom dañoo wuute ci ab atteem ndax day fay wala day joxe jëm kooku mooy jigéen joo xam ne dafa tollu diggante wala muy nàmpal te gis ne su wooree dana loru wala doom jim yor dana loru mu yëgal ko boppam wala boog ña koy toppatoo ci wàllu faj wax ko lu mel noonu waaye nag kooka la gën a dëgër ci mbiram daal mooy day dog waaye nag bu demee ba génn ca loola la ko teewoon a mën a woor muy am na doom wala bu dee nàmpal ba doom ja xaw naa dëgër ba bu wooree itam koor ga du wàññi dara doom ji bu boobaa mu fay am nañ ñu ne euh, day lele waaye li gën a dëgër daal mooy euh, day fay ndax day dugg ci marit ab tet marit lay dugg rek fa man kaa ne ko marital bañ nañ koo ba sax ba jigéen ñi wérul lañuy wax dafa wérut kooku kon bu boobaa euh, fay nga su fekkee am na espace fu mu mën a faye day fay su demee ba amu ko nag nga xam ne fu mu jógee ci ëmb mi ngi ci nàmpal te nàmpal bi mënu koo booleeg woor te mën naa bu feralee boo tudd ëmbaat xam amul fenn fu mu faye loolu kon boobaa nag na joxe ñam gën muy tegale ay bori koor yu bari di dem te ab dundam xamul fu muy yem xamul fu mu koy mën a faye bu fekkee noonu la tegaloo daal amul benn espace boo xam ne dana ci mën a féex ndax it am bit du ciage ni am bepp rek mo meuna a tere nit ki meuna am ba nopi di wor loolu luy dal nit la rek nit ki mën nay nàmpal ba nopi itam di wor waye su fekkee nak mom xalam dafa mënta boole ëmb gi ak koor gi wala nampal bi ak koor gi lo xam teggu ko ci bakkanam waaye lu wóor la loola moom bu boba kon man na do mbokk yi kon shahru ramadan bi ngi ñew nañ ko waajal bu baax ni euh, nga xamé ne buñ doon téru gan goo xam ne nit la kuy ñëw la ngay njëkk a def mooy defar barab ba nga koy dalal waajal itam la nga koy berndeel kon ramadaan borom bi tabaaraka wa taala ñi ngi koy digal mooy ñi gëm yàlla yaa ayyuha lasina amanu kon iman lay fekk si iman bi ne ci xol bi mooy dalal ramadaan yaa ayyuha lasina amanu kutiba alaykum siyam kon wéeralaat sa ngëm yàlla tuub say bakkaar wéeralaat sa ngëm yàlla sa digganteeg sa borom waaye lañ koy bernee la nag mooy jaamu yàlla yi jaamu yàlla yi rek la ci jiitu mooy farata yi waaye ak naafila yi gépp naafila te mooy lépp loo xam dañ koy dollee ak jaamu yàlla rek naafila bi du bari suñ ko waxee julli rek lañ koy teg déedéet naafila mooy ndolleen rek naafila am na ci aj makka lu mel ne umra kooku naafila la ci aj makka naafila am na ci alal alal boo xasee génne asaka muy farata ji leneen loo ci joxe jaamu yàlla ak naafila la tatawoo la tatawaa xayran la ak nag naafila ak julli alquran itam moom mooy shahru shahru ramadan mooy weeram kon kenn ku nekk ku ca daan jàng war ngaa gën a farlu yokk la nga ca daan jàng ku ca sàggaroon ba doo ko jàng war ngaa jéem a tàmbali nag di ko jàng ci ramadan ndax kat alquran jàng ko suñu borom mooy ci kenn ngant faqra'u ma tayassara min alquran la borom bi wax alima nga bëgg lay borom bi ne alima li ngay bëgg wax xam naa ko sa yakunu minkum marda nga ne ma dama feebar mu ne sa yakunu minkum marda nga ne damay tukki mu ne wa akharuna yadribuna fil ard yaqtahuna min fadlillah nga ne damay jaar mu ne wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah wa tiru faqr wa ma taysara min yalla mayu kenn formation te nga yi mën di weesu dama feebar liggéey be bari dama ne ci coono yu metti ndax jihad moy li gëna metti ci lu ñuy def nek ci yoonu yalla di xex même koku sax teewul nee nañ ko jàngal alxuraan rek kon alxuraan moom li nga xamee ne yaram mu doomu aadama bii a koy dundal nit ki lu mu feebar feebar dañ naan ne fexe leen rek ba mu ba mu jàllale génn kudd wala ñaari kudd rek même bu ko mën na jàllale ba mu sax nit ñi dañ ko forcer ba jàllale ko aaya alxuraan itam nag roogi moom loolu lay dundee yaram bi muy dundee ñam mais roogi moom alxuraan lay dundee kon nag moom it fexeel ba jàllale benn aaya wala ñaari aaya rek noonu ñuy forcer bi fexe ba mu lekk. kenn ku ne war nga forcer sa bop même bu demee bu mënatu ko jàng sax war nañu nekk ci wetam di ko jàng muy dégg bis bu seet amal dara ci alquran waaye ëpp naa ñàkk am dara ci alquran kon nag yàlla nu borom bi tabaraka taala fekkeloo weer wi te nangul nu ko te tàggatul nu sunu cër ak sunu bakkan ba ñu man cee topp suñu borom tabaraka taala ni mu ko gërëme te buñ ko defee mu nangul nu ko wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain